patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda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 jeudi 4 avril 2024 mbokkee xarit yi ñuy topp sur la voie des sans voix ñu ngi leen di nuyu bu baax ah, di leen ziar comme ni ñu koy defee tous les jeudis rek ñu ñëwaat ak yéen sur les live de Pape Sané waxtaan ci li jëm ci actualité nationale bi tey nag euh, mu nekk jour bu nga xam ne jour bu spécial la ci li nga xam ne mooy askanu Sénégal parce que tey mooy 4 avril te ku ne avril sa xel dem ci li nga xam ne mooy indépendance su Sénégal bi Sénégal moomee boppam depuis 1960 mu nekk 64 ans. après ñu ciy jaajëfal ñi nga xam ne nag ñoo xeex ba indépendance bi li nga xam ne mooy Sénégal jot ci bokk na ci li jëm ci suñu wàllum armée bokk na ci li nga xam ne mooy élite politique bi bokk na ci li nga xam ne tamit mooy la résistance pacifique su ma ko waxee sama xel dem ci ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou bàmb sama xel dem ci Alaaji Malick si ki nga xam ne tamit mooy Cheikh Omar Foutiou taal ba ci ñi nga xam ne ñooy nekk waa Laayeen waa Ñaseen ñoom ñëpp ñu xeex ci li nga xam ne mooy indépendance su Sénégal ñu leen di jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di ñaan suñu borom ki mu fi teg di la président Bassirou Diomaye fay yéen bi yombu torop ci li nga xam ne mooy moom mu gérer li nga xam ne mooy la république rek avec dignité noonu laay koy defee rek nuyu ñi nga xam ne ñooy mbokku internautes yi waaye bala maa ñëw ci ñoom ma nuyu ki nga xam ne mooy Pape Sané may ànd ak moom ci live bi Pape maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar bàyyi la nga nuyoog suñu mbokku internautes yi. waaw sëñ Omar delloo ziar waaw mel ni tey koor gi da laa xaw a laal la ah. koor gi ah non pas tellement. Euh, pas tellement quoi laal na la tuuti. Ah, mu jeex. waaw geex na daanaka Umar euh, am mbégte déjà nuyu nuyu la bu baax a baax nuyu sunu mbokk yi ñuy seetaan. nuyu sunu équipe technique bi nga xam ne ñoo ñuy gunge saasu su nekk euh, baron Feuz ak kii nga xam ne mooy Dieng nuyu ni nga ko defee sargal Sénégalais yi. Euh, féliciter leen féliciter le président élu Bassirou Diomaye mm-hmm. euh, ci euh, fête euh, de bi ñu fête tey mm-hmm. waaw di wax nag ne que euh, sobriété bi nga xam ne moom nañ ko fêtee sénégalais yi gis ko maanaam très simplement mm-hmm. euh, dépense suñu ci dépense bu bëri et wane na ni que rek exemple la pour wane ni que Euh, doxalinu Sénégal maanaam yoreenu Sénégal mun nañ ko gérer aussi dans la sobriété. Hmm. Euh, éviter ces défenses euh, de de prestige éviter yenn affaires yi. Hmm. dana faire dana économie sénégalaise bi. Hmm. daal di gën toppatoo soxla sénégalais yi parce que boo tey jii buñ fi naroon def défilé 4 avril Umar mhm. na la leer ni que xaalis bu weex tàll moo fi na naroon génn donc euh, nañ ko célébrer nii dans la sobriété mhm. euh, lu rafet la mun nañu également fexe xalaat euh, fexe ba nga xam ne dans tous les autres pans de de l'État mhm. tamit sobriété boobu ñu gis tey noonu la fas yéene doxalee Sénégal bañ fi nekk voilà mu nga comme ni mu doon am ci yenn nguur yi gis fi yenn dépense fastueuse yi yenn dépense de prestige yi yenn daanaka gaspillage juste pour wane ni que wane en république quoi voilà. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Pape Sané comme ni mu ko waxee rek tey moom li ñu jis fële ci palais présidentiel mooy <coughs> voilà li nga xam ne mooy couleuru Sénégal rek lañ doon yëkkati mu nekk raay gu nga xam ne raay gu mag la mais li nga xam ne mooy défilé bi moom dañ ko ajandi rek et espérons li nga xam ne mooy l'année prochaine dinañ ko amal avec le nouveau président di Bassirou Diomaye fay moom Bassirou Diomaye fay moomu sax ñi samp ko ci li nga xam ne mooy. Euh, kaw njiitu réew mi ginnaaw bi ñu demee fële li nga xam ne mooy centre de conférence internationale Abdou Diouf conseil constitutionnel tab ba ko mu nekk le cinquième président de la république du Sénégal moom Bassirou Diomaye fay moomu fi mu toll nii commencé na li nga xam ne mooy di doxal li nga xam ne mooy euh, yéen bi nga xam ne askan bi teg nañ ko ko mais mu def ay discours yu nga xam ne yu am solo la notamment démb ci li nga xam ne mooy euh, voilà le 3 avril mais discours boobu ana ban jàngat rek nga ciy def. waaw euh, euh, euh, di di di rafetlu déjà un wu kii di président Bassirou Diomaye Faye ci wàllu discours bi li ñu mën a retenir mooy que Bassirou yi ba muy nekk candidat ba démb son discours soo xoolee discours yi daanaka day am rek yokkute maanaam chaque fois boo waxee rek day am un plus bi nga xam ne dañ ko ci gis. Hmm. Euh, te li ci gën a intéressant dans son discours d'hier mooy que euh, on a vu un président de la République. qui est sûr cest à moom li muy wax il est sûr de la euh, de fi mu bëgg yóbbu réew mi mooy benn. ñaar dans son discours mu am benn lañ ci percevoir mooy que les Sénégalais. yi croit fermement croit en ce qu'il dit gëm nañ ko euh, muy benn ñaar ñetteel bi plutôt mooy que li mu wax tënkal ko sénégalais yi doon na la nga xam ne ce ne pas on n'a pas besoin d'être un génie on n'a pas besoin d'être un virtuose euh, il suffit juste nga am volonté pour réaliser loolu nga xam ne la wax cest li mu wax proposé ko Sénégal yi c'est tellement basique mooy li nga xam ne dans tout état normal noonu la war a fonctionner donc euh, loolu bu ñëwee indi ko de façon très basique ba pare engagé wu à aller dans ce sens la euh, je crois que c'est déjà un bon pas un bon pas dans la mesure où demande boobu mooy li mu def noonu li mu wax noonu c'est une demande c'est une forte demande moom sénégalais ñoo ko bëgg moo tax ma ne euh, il va il va avoir double pression même bu dee niroo na nit ko dul am pression mais dina am une double pression double pression bi mooy depuis dix ans ñii nga xam ne ñoo gëm lañ naan projet boobu mooy di li Pastef projet boobu ñi nga xam ne dañ ko gëm gunge ko dix ans mu jaral leen ñi rey leen ci mu jaral leen ñi tëj leen kaso mu jaral leen ñi génn dëkk bi gis nga dix ans yooyu ñu ñu souffrir cinq ans yi noonu nañ ko nar a souffrir pour maanaam di def lañ naan marquage à la mooy maanaam duñ ko may duñ ko may benn yoon benn yoon muy jéem a changer de paradigme enfin changer de de de de de de destination. donc moo tax ma ne discours bi dañ koy mën a rafetlu waaw di ñaan comme ni nga ko waxee sànq suñu borom may ko kàttan. waaw ay yéen a mu ngi fi déjà yàlla may ko kàttan mu mun a àggalil fa mu jëm. ci mm-hmm. ci discours bi fa mu jëm mu mën faa àgg. Mm-hmm. ba pare di ñaan encore beneen affaire mooy sunu borom soreel ko yenn gémmeñ yi yenn ñenn mm-hmm. kàddu yu ñu ngi commencé yàq sax di wax digganteem ak Sonko xam naa yooyu yëpp dinañ ci waaw loolu moom c'est des faux problèmes quoi man débat boobu Omar on va en parler mais je dis que c'est même pas un je crois pas en ce débat là waaw mais li leer ba leer rek di ko ñaanal yàlla may ko mu mun a muslu ci yenn gémmiñ yi nga xam ne Sénégal depuis 1960 fi mu yàqoo ba tollu fii ñoo ñu bokk na ci mooy ñu may la may faral di wax rek ñooñ nga xam ne amuñu dara seen àddina lu dul toog muy dox ak tëdd muy dox Cheikh Bara yokk na si sax ne na am na bippe muy dox muy dox waaw en tout cas bëri na ci li nga xam ne mooy Sénégal toog muy doxi mais yaa ngi koy wax sànq depuis 1960 ñi ngi am li tolloog ci ñetti alternance mais alternance et pas li nga xam ne mooy alternative parce que dañuy gis ne alternance dañ koy wax mais des fois li ñu doon gis ci li nga xam ne mooy régime yële rek mooy répété wu est-ce jàpp nga ne avec régime bu bees bi moom rupture totale bi Sénégal yi bëgg mu am dinañ ko am man de rupture totale balaa ma koy gëm gëm ni que nañ ko waxee seen campagne tenir ko maanaam mu nekk seen le produit de leur projet de leur projet. Mm-hmm. ba pare ñu indee ko ba tey jii ñëw toog ci nguur gi balaa maa jàpp ni que lu mun a nekk la Omar. Mm-hmm. dafa am ay pàcc yu important yi nga xam ne man bu ci président bi taxawee rek ma gëm ni que effectivement loolu dana am. mooy que nañu assurer d'abord notre indépendance nous Sénégal c'est-à-dire nañu assumer suñu indépendance assumer suñu indépendance le premier acte à poser mooy. armée française ñu dàq ko mu génn Sénégal loolu moom amul explication suñu buggee nekk fii di expliquer non non ay la ay consorts les accords sont faits pour être cassés hmm. les accords sont faits pour être résilier loolu mooy sama premier point gis nga loolu euh, Omar les Sénégalais son intraitables sur cette question la hmm. mooy que la présence militaire française dafa war a dàkk ci dëkk bi su dee nag wax dëgg yàlla on est un état indépendant. Mhm. loolu yaakaar naa war na nekk ci priorité am. Mhm. waaw mënuñu wax ay waxu indépendance di xëy bés bu nekk di dajag ay tubaab ay nasaraanu ay militaire nasaraan ay tubaab yu nekk ci dëkk bi seen oto de daw suñuy dëkk ñu yore seen base suñuy dëkk seen avion di naawee suñu dëkk di dem. Mhm. alors qu'on n'est pas en temps de guerre on est en temps de paix mun naa comprendre sax en temps de guerre. ñu ne bon ok mun nañ leen faciliter ay yenn affaires yeeg yooyu mais ça tolluñu foofu. Mm. donc dama ne la première urgence bi nga xam ne war na ko asseoir. Mm. mooy justement cette souveraineté du Sénégal. Mm. fii mooy ambassade lay on naan ambassade sax base. base armée génn sunu dëkk. kooku mooy benn exigence bi. Euh, beneen exigence bi. mooy la reddition des comptes. Umar mënuñu nekk ci dëkk depuis 1960 soo xoolee ñi fi tekki seen njaboot tekki fii mooy ñi nga xam ne jot nañu jaar ci nguur gi depuis 1960 dans ce pays on s'est amusé à détruire le tissu industriel de ce pays 1960 bi ñu dem indépendance dëkk Afrique franco Afrique francophone fii ah, yi nekk fii yëpp hmm. Sénégal moo leen gënoon ci wàllu infrastructure ci wàllu tissu industriel usine diwlin mu ngi fi woon usine leneen ak leneen mu ngi fi woon ils ont tout déstructuré depuis 1960 ak léegi liñ fi gis mooy ay homme politique wala ay kili ay ministre ay directeurs généraux yu ñu fi nommé qui sont devenus les plus riches dans ce mu mel ni ci discours am yi sax wax na ko parce que mi ngi jàpp ne ñi nga xam ne ay sénégalais lañ jël li nga xam ne mooy alalu askan bi ñi ngi leen woo rek ci njekk ñu indiwaat ko waaye tamit mi ngi woo li nga xam ne mooy lanceur d'alerte yi képp ku nga xam ne gis nga kuy dox ci wàllum corruption genre yooyu nga dénoncé ko te état wu Sénégal dina la protéger. Omar njekk bi ànduma ci. Hmm. sàcc sàcc la. kii sàcc portable bu ñu ko jàppee dañ koy toroxal duma ko yóbbu ko ci kaso bi àtte ko bind ci journaux yi ni sàcc katu portable la ministre ak président ak DG ku mu munti doon ku fi sàcc it nga dong amul sàcc bu ñuy rafetal wala sàcc bu ñuy wormal ay ci njëkk amu ci c'est-à-dire que lii il faut que mu donne une question tranchée claire définitive Ces gens ont pillé les deniers de ce pays. Ces gens ont pillé les terres de ce pays. Ces gens ont pillé les ressources de ce pays. ñooñu c'est-à-dire chambre criminelle moo leen war a àtt sax man bu ma déggee ñaan ay ci njëkk na ñëw joxe. mais c'est c'est c'est trop facile. c'est pas on ne demande pas une gestion politique de ces pillages là kenn ñaanul kenn waxul kenn bëggul ñu gérer politiquement ay diw luubal na li diw ñu koy gérer non non il une justice. Oui, absolument. Il une justice, on n'a qu'à faire tout ce qu'il faut pour que cette justice-là fasse son travail. te li ma leer ba leer magistrat yii ma gis ni soo leen lâcher la bride saa waay ils vont prendre leurs ils vont faire leur travail mënuñu nag laa la wax je sa man lii moom dalul sama xel je tout de suite. ay ñëw ci njëkk ñii jël lañu ñëw ci njëkk kii sàcc kay dañ ko teg ci yoon rek. mais am na ñoo xam ne sax rapport yi ñoo leen épinglé ba pare. notamment ah. cour des comptes IGE ñoom wala boog OFNAC am na ñu nga xam ne seen i rapport tegee woon na ci li nga xam ne mooy taabalu président Macky Sall moom moo ci tegoon li nga xam ne mooy kuddam comme ni mu koy waxee conc bi mais vu que am nañ beneen président bu bees moom transparence la woote waaye tamit di lutter contre la corruption jàpp naa rapport yooyu lay jël rek jébbal ko le procureur. non Omar fu mu nekk nii nii nii nii. Hmm. le de la justice bu toogee. xoolal am na say ay say yu laa la wax yi nga xam ne. amul ay enquête de soxlawul enquête. rapport yu définitif la moom koy day jël rek ne procureur. voilà dossier bi fii la Pape Dia Pape Sané doon jaayee kilo jëndee kilo ñebe 4000 francs leeral ma ko. dossier bii dañ doon wax affaire u Prodac quatre-vingt-quatre vingt-quatre vingt-neuf milliards trente-quatre milliards hmm. leeral ma ko rapport bi moom lañ doon wax affaire u quatre-vingt-quatorze milliards hmm. leeral ma ko rapport bii nañ ñu wax diw ak diw sàcc nañ fi licence de pêche Sénégal jaay ko hmm. rapport bi c'est-à-dire yooyu c'est déjà établi jarul enquête moom kay nañu jox ndigal procureur de la République ne ko saisir la le un juge ñu topp gars yi wax ji ay woo ci njëkk yooyu man moom laa d'accordul dak non non c'est-à-dire première mission li nga xam ne l'une de premières missions du président mooy fexe ba nga xam ne sénégalais yi mu bañ a am nivellement mooy maanaam sénégalais bii bu defee dañ koy woo ci njëkk arrangé waxtaan sénégalais bii bu defee ñu jàpp ko ci mbedd bi dóor ba mu bugga a dee euh, yóbbu police après jaaree ko foofu yóbbu gendarme yóbbu yóbbu yóbbu kaso déedéet kii sàcc portable wala ganaar wala xar. Mm-hmm. en général ñoom ñooy gën a sonn ku ñuy sàcc ay milliards kooku Omar la amal problème xaru Omar la sàcc waaye kii sàcc milliards wala ay milliards Sénégal dix-huit millions de Sénégal lay la xañ hôpital la xañ école la xañ lu ñuy lekk la xañ euh, lu ñuy naan donc kooku bokkul moo tax ma la ñooñu chambre criminelle moo leen war a atteindre bu kon nag bu ñu nekkee fii naan dañ leen di ah, dañ leen di woo ci njëkk mais ça veut dire mooy kay euh, dañuy sàcc ñi ñi fi nekkaat encore bu ñu sàccee keneen bu ñëwee woo leen si njëkk rek surtout dañ leen war a teg ci yoon rek pour que tout ceci s'arrête définitivement. oui absolument Burkina Faso ngi nii. def nañ ko fi. dañ ko fi def. affaire bi jur xaalis bu weex tàll. ay milliards ay milliards génn ci. donc nag mënuñu toog fii di wax naan dañuy rafetal ak ah, rafetal amu ci. Mm-hmm. un voleur c'est un voleur ay sàcc nañu ay sàcc nañu. ñoom ak sàcckatu ginaar yi ñoo yem sàcckatu milliards yi ñoo gën a yées sàcckatu ginaar yi. Hmm. sàcc yi sax yemul ci li nga xam ne mooy xaalis rek mais ci wàllum foncier tamit gis nañ ne. voilà soo xoolee li nga xam ne mooy littoral bi yëpp presque ay borom doole nga fay gis te niñ ko amee nekkul lu nga xam ne lu légal la loolu tamit jàpp naa ne ki nga xam ne mooy président Diomaye fay ak le nouveau régime gouvernement bi war nañ ci bay seen loxo bu baax a baax. tout à fait c'est une forte c'est une forte demande ñoom ñoom. dafa bokk seen promesse yi. te moom mu dund ko waaw ki nga xam ne mooy jomaay dund na loolu. ci li nga xam ne mooy wàllum leer bi. fa voilà mu ngoog. te dama ne yàlla yàlla daal moo mun defar xam nga Bassirou Diomaye président bi moom ci fukki at ak ñaar yi impôt la nekkoon. impôt et domaine surtout. nekk fa vérificateur di saytu. Hmm. bu bu ñu daggalee Umar cinquante parcelles xam na. Hmm. bu ñu defee amnistie fiscale xam na am amnistie fiscale bii kan kan la amal njëriñ bu nit fayul impôt xam na ku fayul impôt mooy bande fiscale yi xam na donc yàlla daf ko yàlla daf ko préparé woon douze ans yi yàlla daf ko doon préparé douze ans yi ne ko dama bëgg nga toog fii ci ruq bi ngay xool ñii nga war a remplacer suba tojaanga yi ñuy def pour bu ñëwee nga rectifier ko dootoo loo ci sonn c'est-à-dire moom dafa war a ñëw rek moom nag moom waaw moom nag moom nag toog muy dox moom jekk na dana dana jekk ci moom parce que moom day ñëw rek teg rek mu glissé. Hmm. waaw parce que lépp il l'a amee mais fenn laa ne euh, fa xaw a d'accord tuuti. Hmm. Omar. muy lan. gis nga luubal yi am nii. Hmm. luubal yi am nii nii nii. bokk na ci li nga xam ne su ko président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement am réglé wu jéem réglé wuñ ko wala jéem ko regle ne leen lu yoon lu mu prévoir daañ mhm. daañ daañ tooñ sénégalais ci nag damay ragal ñu dugal ci wàllum politique voilà Umar mhm. ba démb ci guddi am na gaal bu teeree fële ci Espagne ak ñaari téeméeri nit. ba démb am na fukki gaal ak ñaar yu ñu bloqué fële ca Tunisie. mooy maanaam la saignée continuer nit ñaa ngi continuer dem ndem fal nañu président bu bees am ci yaakaar mais nit ñaa ngi génn di dem mooy maanaam xalaataguñu yaakaaraguñu ne que li ñu bëgg. si seen àddina mën nañ ko am fii donc loolu dafa war a rassurer sénégalais yi ñii buggoon dem toog ñii dem dellu si waaw donc loolu moo tax ma ne la buñ ko naree régler neneen lu dul ci yoon rek euh, je crois que euh, daañu daañu décevoir beaucoup de sénégalais loolu du loolu la sénégalais di xaar muy benn ñaar kii di Ousmane Sonko li ko teree mu nekk candidat benn dossier bu mu yëkkati woon la Prodac hmm. moo taxoon ñu ne ko ci ba nekkul candidat absolument mais tey jii moom Ousmane Sonko dafa am obligation fexe ba rapport boobu génn hmm. démb maa ngi gis ki nga xam ne mooy biiram Seck bu Forum Civil mi ngi ciy wax sax ah, dañuy waxantu rek ah. ba waxtu biñ ci waree wax jëbawuñu woon wax dañ doon la layam layam rek. mais en tout cas démb mi ngi ci interpellé ki nga xam ne mooy le chef du gouvernement. waaw parce que parce que man bay wàcc na moo tax nee na nem moo tax ñu ciy wax nii waaye waxtu biñ ci waree wax jël ci ay position ferme ñoom ñëpp dañ ne woon nii gis nga euh, Umar dama ne tey Ousmane ah, le président le premier ministre Ousmane Sonko a l'obligation de rendre public ce rapport là. Hmm. génne ko ne ko fang ñëpp xool ko. ñu xam ndax la mu doon wax moom mooy dëgg waaw xool ni que lañ ko ne woon tax ba nekkul candidat nekk ne lii la woon sénégalais dañu war a xam rapport boobu ak yeneen rapport yeneen rapport donc tey jii moo tax ma ne la yàlla dafa mel ne dafa préparé parce que ku ci nekk ci nga am nga la xam ne jaar nga ci ci wàllu googu tey nga war a toog nag leeral ko waaw Basirou yàlla 12 ans dafa benn yàlla daf ko bàyyi woon fële impôt muy vérifier muy xool di gis pour bu ñëwee toog lii yomb ci moom Ousmane Sonko bañ koy ne xëy na yàlla lii la ko doon wax bu subaa da nga nekk premier ministre te danga nga mën a da nga mën a taxaw génnee rapport bi leeral ko mm-hmm. waaw léegi nag leer na moom Ousmane Sonko sax yaa ngi koy wax sànq moo nekk li nga xam ne actuellement mooy le premier ministre du gouvernement naam ñi ngi xaar yeneen ministre yi nga xam ne di si quelques jour peut-être dinañ leen nome mais Ousmane Sonko ana ban rôle rek la war a jouer pour épauler ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye ci li nga xam ne mooy bonne gouvernance waaye tamit ci lépp lu nga xam ne teg nañ ko rek pour jëmale projet bi kanam. waaw mais xam nga déjà damay lire benn waaye mu ne. Ousmane Sonko jiitewul projet bi Ousmane mooy projet bi. projet bi koy incarné. voilà euh, effectivement quand tu fais une lecture pointue nga comprendre waa euh, mun nga ko nangul. Hmm. c'est celui moom mooy ki nga xam ne moo gën a sonn gën a fay gën a torox. Hmm. pour que projet bi taxaw. taxaw euh, njabootam sa famille a souffert moom ci boppam il a souffert. ay proches am souffrir nañu lu nekk dafa wax nañ ko ko jiiñ nañ ko fi jiñ yu gën a yées ci doomu aadama ñu teg ko ci ndondam loolu yëpp donc tey loolu yëpp pour moom la finalité c'était quoi mooy projet bi taxaw yàlla def na projet bi taxaw kon tey dafa war a am ñaari taxawaay hmm. dafa war a nekk le conducteur hmm. et le protecteur du projet mooy maanaam tey moom ba président Bassirou Diomaye bu taalee ba pare. waaw ne ko direction baa ngi nii. ñaar yëpp mu boole ko. conducteur ba pare di protéger di waaw. Mm-hmm. parce que lii am fii tey jii euh, bon euh, il faut le dire c'est les c'est les choses sont sont ainsi quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ci ci ci ci ci barke Ousmane Sonko la mm-hmm. waaw. su xeexul woon benn xeex bi euh, euh, je suis sûr que bu taxoon ne nañu nañu fal diw gars yi duñ ko faale. non man kay génie politique bi nga daan wax des fois ci Macky Sall bi yoon ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko laa ko gis parce que soo xoolee processus bi ni mu demee yëpp dafa mel ni dafa attirer tous les projecteurs ci personne pour mën a protéger la candidature de ki nga xam ne mooy Diomaye Faye parce que su ko teeloon génnee peut-être ñuy wax plan B plan B amaana nga xam ne mooy régime bi ci niñ leen doon fakkastale dinañ jëf la ba Diomaye tamit du nekk candidat. Bon, en fait, euh, je dis il a fait preuve de pragmatisme politique. dab na xam na ni que du mun a jàll. il fallait quoi euh, ma ma sacrifier sama bopp sacrifier sama parti non mun waaw comme man sacrifié nañ ma je peux faire en sorte que sama parti existe donc c' est du pragmatisme c' est mooy benn ñaar aussi euh, c' est un esprit de dépassement c' est à dire que moo tax euh, président Alpha Condé bu Guinée euh, à travers benn tweet bu mu def mu ne Afrique la jeunesse dañu war a jël exemple ci Ousmane Sonko mooy lan mooy que finalité homme politique du rek nga jël nguur gi mooy maanaam du rek ñu fal la. mais idée yi ngay idée wu idée ak idée yooyu yi ngay défendre. nga fexe ba loolu ñu mun ko matérialiser. donc euh, mu doon une leçon bi nga xam ne euh, kii di président Alpha Condé fële ca Turquie la def témoignage boobu nee na effectivement euh, moom sa génération am na lu ñu raté mais tey jii. avec cet exemple bi nga xam ne moom la Ousmane ko def. sa sacrifice sa don de soi pour que justement idéal boobu nga xam ne boobu la gëm idéal boobu nga xam ne moom la pendant dix ans xale yi gëm ko mu jaral leen ñu dee ci mu jaral leen ñu rey leen ci mu jaral leen ñu dugg ci kaso mu jaral leen lu nekk donc idéal boobu fa la Bouddha fallait mu prospérer et pour que mu prospérer mooy que ce ce sacrifice je dirais pas ultime mais ce sacrifice là euh, il fallait que mu am waaw autrement rek prospéré na fële ci gis nañ li nga xam ne mooy Pastef am ñu ko fa taxawal. Eh, taxawal rek li nga xam ne ba fee ci Bénin. Mhm. et am na fa pap Pastef. Mhm. et donc loolu yëpp donc ça des émules. ça des émules mais moo tax ma ne double mission la am mooy président Bassirou Diomaye bi nga xam ne moom la sénégalais yi fal. Mhm. sur la base de ce programme là bu day ne cukkutaal moteur bi accéléré mu neex. mu ne ko Ousmane mu ne ko naa mu ne ko kaay Ousmane nag war a dawal en même temps war a nekk alkaati bi taxaw ci mbedd bi di xool ndax dawal leen bi njëkk donc ñaari taxawaay yooyu la war am waaw euh, donc à ce titre je crois que mun nañu mun nañu je dis pas mu def preuve de dédoublement mais euh, engagement bi nga xam ne moom la ci wanee ba ñu egsi fii mu wane doublement le même engagement pour que mbir mi aboutir te mu àgg jaar ci yoon yoon yu yi nga xam ne moom nañ ko teg ba nga xam ne sénégalais bu ci nekk dana ci retrouver boppam man jàpp naa ne sax sénégalais bu nekk mën na ci gis boppam parce que li nga xam ne mooy rupture bi comme ni ko wolof di waxee bay ci hmm. doon woote mooy cumul de fonction bugguñ ko ci nga xam ne mooy administration bi hmm. te gis nañ ki nga xam ne mooy le président Diomaye dafa démissionné ci li nga xam ne mooy secrétaire général bu Pastef hmm. Ousmane Sonko tamit ñu ngi dégg voilà ne peut-être mën na démissionné ci li nga xam ne mooy mairie du Ziguinchor est-ce que yooyu yëpp ñuy teg jàppoo ne ñoom projet nga xam ne dañ ko doon jaay sénégalais yi dañ ko gëm dañ koy doxal. Ah, en tout cas euh, comme nañ koy waxee kenn bu naree neex bu baxee xeeñ. Ah. bon ñoom ñoo ko waxoon euh, effectivement président Bassirou Diomaye Faye a fait preuve d'une très grande élégance en démissionnant des instances du parti. Hmm. Omar néew na njiitu politique Afrique. Hmm. njiitum politique Afrique. ñu fal la nga ne man sama parti lañ ma fa joxoon ci nomb tànk yëpp banaa ko militant simple la néew na mais def na ko euh, Ousmane Sonko nee nañu dana démissionné ca maire Ziguinchor ñu ngi koy xaar parce que ñoom ñoo ko diggoon Sénégalais yi parce que lii tax adhérence projet bi continuer lii tax Sénégalais yi gën a gëm projet bi gën ko soutenir mooy que lépp lu ñu waxante woon ak sénégalais yi waxtu bi bu jotee rek. ñu jëfee ko ñu jëfee ko. donc président Bassirou posé na un acte très fort ah je un acte très fort man personnellement je m'y parce que je m'y attendais pas mais posé na un acte quand même très fort. muy benn parce que le secretaire général c'est c'est l'âme du parti. Mm. waaw c'était le numéro 2 et en même temps l'âme du parti donc bu demee mooy maanaam moom décidé na na se sacrifier politiquement pour gérer l'état du Sénégal waaw donc ci wàllu politique kenn mënatu ko ci teg benn pression. waaw wàllu politique Pastef kenn mënatu benn pression. donc c'est une excellente chose une très bonne chose Ousmane nag bu Ousmane Sonko nag bu démissionné ça va vraiment oh euh, là bi quoi maanaam bu subaa. ñëpp ñu ñu war a nommer. wala ña nga xam ne amoon nañu deux postes di cumuler tey ji wax fa dëgg yàlla ils seront mal ils sont ils seront dans leur petit soulier te daañu fexe tamit ñoom ni ñuy xoolee jël benn poste bàyyi benn post parce que bu dee kilifa yi ci kaw ñoo ko def. ñii ci suuf bu ñu ko deful mooy que kon sa discipline de parti boobu ñoo ñooñu gëmuñu ko. Mm-hmm. waaw. ci li nga xam ne mooy wàllum gouvernement bi sax maa ngi koy wax sànq ñi ngi xaarandi fii ak quelques ñu am yenn ci ay ministre mhm. mais li nga xam ne mooy Jomaay Fay nekk ci li nga xam ne mooy Pastef mhm. dafa àndaloo nag benn coalition muy coalition Jomaay président mhm. coalition boobu sax gis nañ ne ki nga xam ne mooy directeur de cabinet di Mary Teuw Niane moom lañ teg ci wetam mu a gérer lépp lu jëm ci li nga xam ne mooy wàllum présidence moo ko euh, Samba Omar Ba j'espère ñoom ñaar ñu war a doxal ñaar ñooñu tamit li nga xam ne mooy euh, fal gi nga xam ne fal nañ leen ko ana ban jàngat nga siy def damay rafetlu déjà un parce que Samba Oumar c'est quelqu'un que je connais très bien d'ailleurs euh, ma que c'est un grand commis de l'État mmh, absolument euh, quelqu'un qui sait faire la part des choses quand je dis faire la part des chose mooy que man Samba Oumar dama koy dama koy dama koy méngale ku mel ni euh, dem si yàlla Bruno Diatta Omar ma wax la raconter la benn anecdote fii Sénégal ñi xam Bruno Diatta ñëpp daañu xam ni ko son meilleur ami c'était feu Djiboka Djibo Leyti ñi xam dëgg hmm. xam ni que ils hmm. c'était le meilleur ami de Bruno Diatta hmm. bu ñu nekkee fii Sénégal tous les dimanches ils étaient ensemble mais imagine nga nga Bruno chef du protocole de président su Abdou juuf yàqalu ko digganteem ak Djibo Leyti Ka opposant Abdou Diouf gis ko xam ko xam seen diggante. bàyyi ko fa te musul ñàkk wóolu. Bruno parce que xamoon na lu mu xamoon mooy que xamoon na ne que Bruno Diatta mi. c'est faire la part des choses. mooy maanaam am na la nga xam ne kii di Djibo Ka dafa mus a àgg ak moom te kii di Bruno Diatta am na la nga xam ne du ko mus a def ak Bruno Diatta euh, Djibo Ka man exemple boobu laay jël jox ko kii nga xam ne mooy Samba Omar Ba Ba quelle soit sa relation quelle ak nguur gi fi jóge même nguuru Ablaye Wade bi nga xam ne jot na ko servir quelle que soit sa relation mais mooy nit ki nga xam ne Sa mission de secrétaire général de la présidence, la présidence. sa mission de commis de l'État mbindeef mënul fexe ba ko dévier donc kooku président Diomaye ñëw jël ku ni men fekk ko foofu mu nekkoon fa secretaire général depuis euh, bientôt trois ans nga confirmer ko dans ses postes mooy que yow tu as un sens élevé de la République mooy maanaam bas président Bassirou Diomaye li mu wone foofu. Mhm. mooy que man je ne suis pas partisan man li ma gëm mooy république. day xool ñu mën a doxal dëkk bi mu. voilà kii di professeur Mary Teuw quel que soit ce qu'on peut lui reprocher quel que soit. Mhm. j'ai dit que sa seule erreur man c'est c'est mon point de vue. Mhm. mooy que il pouvait être un excellent homme politique. mais bi mu jéemee faire de la politique politicienne boobu ñu gis quelque quelque quelque taaram mais il aurait pu être un excellent homme politique ba ñu dugg ci pratique politicienne politicienne yi mais bu weesoo loolu c'est un intellectuel émérite et brillant kenn mënu ko natable c'est également nit ki nga xam ne bañ ko fi dénkee ay responsabilité su juuf su su Senghor su su Wade comme su Macky Sall kenn mësul ñëw taxaw ne rapport bi daf ko épinglé wala dégg nañ ni professeur Mary Teuw dafa détourné lii moom sax wax na ko nee na un fonctionnaire wala boog un ministre warul mën a am li nga xam ne mooy ay milliards ci nga xam ne mi mi ngi koy fayeku tout à fait soo ko déggee te mosuñu gis rapport bu ko épinglé man nga am yaakaar que ne nit ku jub la waaw donc loolu man tamit mun naa ci porter benn témoignage hmm. témoignage mos naa mun naa apporter ba muy nekk ministre toog ak moom ci wàllu benn convention bu ministère am waroon doxal ak suma journal. Hmm. mais très sincèrement euh, j'ai vu quelqu'un bi nga xam ne de très très très responsable. bi ñu bañee fay parce que voilà dañ doon tiré ci nguur gi mais bi ma ñëwee seet si ko dafa ne non dafa woo euh, gaaw daajam bi ne ko saa da ngeen koy fay xaalisam de. Hmm. dafa signé ñun. la muy bind ci nguur géeg bind ko ci kooku suñu yoon nekk ci ñun li ñuy signé ak moom mooy lii hmm. donc kooku voici ce que témoignage bi nga xam ne mën naa ko témoigner ci ci ci ci ci kii nga xam ne mooy professeur Mary Teuw Niane hmm. waaw kooku bu doon keneen la danaa non non duñu leen fay suñu xaalis ba pare ngeen di tiire ci ñun mais dafa insister na nañu fay hmm. donc kooku mun naa ko mun naa ko seedeel ko nga am ku mel noonu Euh, déjà tranche d'âge bi. boo jëlee Bassirou Diomaye ak kii nga xam ne mooy euh, Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp Mary Teuw Niane moo leen mag te moo leen jiitu ci administration. moo leen jiitu ci gérer et responsabilité. ñi jël ko tey jii mu nekk directeur de cabinet mooy maanaam dana nekk benn croix de transmission. entre entre. kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko. ak kii nga xam ne mooy président Bassirou Diomaye mooy maanaam dana fexe ba rataxal diggante bi conflit bu fa nar a am moom dana ko dana ko gaaw a gaaw gaaw euh, artu régler ko donc moo tax ma ne teg biñ ko fa teg boobu c'est pas un hasard waaw c'est un homme très sage c'est un homme très mesuré c'est un nom également très responsable voilà donc loolu euh, ñaari mesures yooyu ñaari décrets yooyu. je trouve que c'est des décrets tout à fait justifiés. Mm-hmm. donc daal ñu xaar li li nga xam ne ñoo ci des muy yeneen ministères yi. voilà ku ci nekk nag jamono ji moom xam naa ne yaa ngi toog di xaar mais Ousmane Sonko li mu wax nekk na lu nga xam ne lu leer la de même que Bassirou Diomaye Faye. mooy ñëwuñu fi pour nguuru mais dañ fi ñëw pour servir li nga xam ne mooy la nation sénégalaise mu mel ni responsabilité bi nga xam ne moo tegee ci seen dodd ñoom ñaar ñëpp xam nañ ko waaye tamit mesuré nañ ko mais ci wàllum li nga xam ne mooy coalition bi tamit mais Omar yow doo laajte ndax man damay nekk loo may iñaane nii <laughs> yow man nga nekk ministre non mais c'est que non Omar loo may iñaane ni <laughs> mais doo mën a doo a sax mais grand alors gars yaa ngi lay consulter waaw wala déet bu la RTS boog gars yi ne nag Pape Alé Niang mais man yow laa bëgg nga dem RTS de non RTS il y a de d'excellents journalistes biir RTS. Mm, no DG quoi DG. non non il y a de très bons journalistes. yu mm. mérité. Mm-hmm. mieux que Racine Talla bii fa nekk nii le poste de DG. xoolal. Ah. moi man li ma gëm mooy la promotion interne. en tout cas gars yi ne nañ affaire bi léegi RTS la bàyyi nañu Walf. waaw <laughs> waaw non yi gars yi leen de. non c'est que RTS dañuy dañuy Walf Walf lu léegi. léegi léegi ñu romb Walf nag. parce que ñoom immeuble bu ngand ñu yem bu bees ak matériel bu yànj. donc <laughs> en tout cas RTS mooy Walf Walf mooy RTS bu leen ñu bàyyi. ah noonu la demee léegi léegi affaire noonu la demee ah. non mais en tout cas pour RTS ah, mhm. je dis ou bien le soleil. y a d'excellents journalistes man. li ma gëm man promotion interne laa gëm quoi. Mhm. wax fa dëgg yàlla on parle de rupture. il y a d'excellents journalistes au soleil et au, au, à la RTS yi nga xam ne Racine Talla bi mu ñëwee dañ leen dugal au frigo. ak bëri sax. ñooñu sawaay boo leen ku leen jox kër gi ñu redressé ko la preuve. xoolal en quelques jours comment la RTS métar foofu mu métar ma foofu. bañ naan bañ koy. jubóo nañ ak sénégalais en tout cas. mais ku jubóowul ak Sénégal. mais moom laa mais mais il peut faire plus. waaw mais c' est que il faut tamit ñun ñu leen di concurrence ah. concurrence en tout cas du <laughs> ma gis moom ni nga ko waxee sànq. tout à fait tout à fait mais moi je de toi moi très sincèrement moi je la promotion interne ah. muy Soleil muy euh, APS muy euh, RTS. Hmm. moi je préfère la promotion interne parce que. je je dama xam je connais d'excellents la wax d'excellents journalistes hmm. tant au Soleil tant à l'APS tant à la RTS ñooñu ku leen jox RTS tu tu lâches tu la bride mooy maanaam mm. bañ leen teg ay pression politique politicienne mm. sa xoolal RTS dana figurer parmi les plus grandes télévisions en Afrique. est-ce que jàppoo ne li ñuy politiser yenn ci li nga xam ne mooy ay ministère wala ay administration mooy waral des fois dérive yooyu di fa am wala boog journaliste yi fa nekk sax wala sénégalais bi liggéey ci benn administration du am fitu doxal li nga xam ne mooy liggéeyam ni mu waree mais suñ ko tegoon ci li nga xam ne mooy wàllum état la da ngay liggéey. concentré wu ci li nga xam ne mooy sa liggéey doo dugg ci wàllum politique j' espère que problème yi yëpp duñ ko am. mais tout à fait on n'aurait pas eu ces problèmes directeur de la RTS. Mmh. Mm-hmm. far ci camp. mais kooku bu ñëwee toog lan lay def. lu camp bëgg rek lay def. après la pluie c'est le beau gis nañ ko fii. il fait il fait de la politique. Mmh. fait de la politique juste dans son dans son médium dans son euh, de travail. Mm-hmm. jëlal APS ki fa nekk c' est il est quel que soit son professionnalisme. Thierno Mountakha waaw quel que soit son pro professionnalisme ça il va il va tout fair pour que partem pour que coalition bi mu bokk jàll. Mhm. Soleil kazalika ki fa nekk c'est un apériste yaa xam mbay lépp lu muy def. CDC waaw. na ci donc yooyu yëpp moo tax ma ne il faut dépolitiser la haute administration. Mhm. il faut administration parce que. admis haute administration boo ci dugalee politique. Mhm. mooy yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi faciliter la corruption. Mhm. parce que DG yooyu nga fay nommé. ci es de leur demander ñu jël xaalisu direction boobu pour politiquer ko. Mhm. lan nga xam ne moom la ñu waroon dugal seen personnel. duñ ko fa dugal mais xoolal le DG de la RTS. pendant combien d'années syndicats yi topp ko pour ay augmentation de salaire. pour ay primes. mu xaar ba jour ba muy ba nga xam ne nguuram geex na c'est-à-dire moom président bi ko faloon geexal na. il signe ça. mais mooy maanaam pendant ces douze ans xaalis ba mu ngi fa ba nga xam ne mënoon nañ ko jox employé yokkal leen bu baax a baax ñu gën a ko mais il l'avait pas fait moo tax ma ne cette propension à politiser la haute administration baaxul day yokk corruption. Hmm. guerre da koy yokk. day indi ce qu'on appelle la médiocrité parce que Omar Sylla le meilleur te àndul ci yenn pratiques yi dañ koy relégué au second plan daal indi Pape Sané bi nga xam ne euh, moom député d'accord la loo ko sant mu def ko donc ça il faut que euh, mu nekk encore une attente yi nga xam ne dañ koy dañ koy xaar ci nguur gu bees gi mooy éradiquer la politisation euh, de la haute de la haute administration mm. waaw soo bëggee nekk DG fës ci benn parti da ngay démissionné soo mënul démissionné duñ nga jox direction parti. Mhm. sànq yaa ngi koy wax muy li jëm ci wàllum corruption bi nga xam ne voilà bëri na Sénégal ba démb ci discours bi rek nee dinañ ci def xeex bu nga xam ne xeex bu tar la. donc président su demee ba ne xeex bu tar jàpp naa ne xam na bi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal parce que sooy xool le Sénégal est parmi cinq pays les plus corrompus au monde. donc xeex bu tar boobu muy wax est-ce que moom kese rek mën na ko xeex wala boog sénégalais yi dañ ci war a jàpp. waaw foofu nag pour sénégalais yi jàppal ko jàpp jàppale ko si li mu war a def mooy fexe ba sénégalais yi xam ni que Pape Sané mii ñu nommé ministre walla ñu nommé ko DG wala ñu jox ko benn poste de responsabilité mu doon toog fii ci koñ bi buy dem ndakaar di jël car rapide wala Njaga Njaay ñu nommé ko mu ñëw di gaare ay V8 ñu naan de kër gi mu doon loué ci koñ bi daal di ko jënd raser kër gi tabax ko R plus 4 S plus 5 ñu naan noo waa jaa ngi nii il faut que sénégalais xam ne que waa jooju sàcckat la seen xaalis la sàcc ñëw di leen ci compal loolu il faut ñu intégrer ko ci vécu quotidien sénégalais yi ñu am réflexe Umar mi buñ ko nomee mu commencé di tabax ay kër du xaalisam mais est du askan bi ñoo lay teg pression parce que da ngay gis ñenn ñi suñ leen nomee seen famille ak ñëpp dañuy ñëw di tëgg di fecc. moo tax ma ne la il faut ñu intégrer ko ci déjà ci askan bi. Hmm. il faut askan bi xam loolu ba pare. Hmm. c'est-à-dire xam ni que la ngeen bëgg ñu xeex ko pour mu jógee fa mooy que yéen il faut que ngeen xam ni que Pape Sané mii ministre wala DG wala bi ñu nommé nangam sangam conseiller nangam sangam bu fi ñëwee di leen xëpp ay ay mille francs kay millions kay tissu. Hmm. seen xaalis la sàcc ñëw fii. absolument. d'où d'où la possibilité pour les Sénégalais hmm. ñu ouvrir leen les portes hmm. de la dénonciation il faut que qu'on hmm. apprenne aux Sénégalais à dénoncer yu muy wax mais pas di euh, formuler ay non gis Umar ni neexu la rek nga woon non non mais di dénoncer c'est-à-dire que les Sénégalais dénoncent ñi dénoncer qu'on dénonce certaines pratiques il faut que aussi mu am ay mécanismes yi nga xam ne suñu dénoncé mu am suite parce que boo dénoncé ba pare te du am suite ça n'a pas de sens of nag ngi nii depuis 2014 a combien il y a des centaines de dénonciations mujjul fenn amul benn volonté quoi il y a aucune volonté aucune volonté donc loolu il faut que ñu éradiquer ko il faut qu'on mette en place des systèmes beaucoup plus fluides yi nga xam ne sénégalais bu ci nekk dana gis ni que pour ma défendre suma économie pour ma mën a am un niveau de vie euh, respectable il faut que corruption bi ma arrêté ko nan laa koy arrêté su ma gisee Umar su ma gisee Pape Sarr su ma gisee lii ak lii ak lii voilà j'agis en conséquence loolu il faut falaa bu ñu def ko buñ ko deful euh, mooy mooy premier aspect bi donc mooy changement impliquer les Sénégalais impliquer les Sénégalais xam ne ko loolu noonu xaalis bi seen xaalis la te mooy tax ñoom seen doom yi du ñu mën a dem jàng ji seen njaboot yi du ñu mën a faju parce que xaalis boobu moo waroon dem ci circuit yooyu. loolu ñu dugal ko ci bopp sénégal yi def ay spots publicitaires ay série de formation dans tous les coins les plus reculés. nit ñi xam ko beneen bi mooy ñu commencer di sanctionner c'est-à-dire que. comme je l'ai di tantôt Omar ces rapport qui la là disponibles. amuñu benn lay nguur gi toog fii amuñu benn lay suba bu ñu nommé un ministre de la justice l'urgence de ce ministre mooy que dossier yooyu nga xam ne tegu nañu ba pare ñu ngi fi. mu dem càmbar ko de soxlawul càmbar day jël téléphone am rek procureur waaw euh, rapport nangam sangam du gën a fi gën a fait le exécuté hmm. ñu jël dossier jox juge gars yi commencé def seen. waaw gars yi duñ daw tamit loolu tamit gars yi nañ ci bàyyi xel de. Euh, Omar. Hmm. duñ tëj kii yi quoi. <laughs> dama ne xoolal wala ñu nangu passeport yi. leer moom leer na. Hmm. leer na leer hmm. na. ci li ma xam ci administration ni muy doxee. passeport diplomatique. bu ñu la ko joxee de passeport bi Omar Gueye ministre. le jour où tu plus ministre passeport boobu il plus valable. dootul valable c'est automatique. c'est automatique bu ñu lay joxaat passeport li ñu ciy bind mooy ancien ministre. Hmm. ancien ministre dañ nañ ciy bind. donc problème boobu c'est facile à régler mais je dis que le pouvoir peut faire plus. Hmm. le pouvoir peut faire plus comme bëri dëkk bi tojamaan yi dañu bëri parce que ans nag du 12 ans du mois de. suuf si Omar région de Ziguinchor région de Saint-Louis région de Tambacounda région de Kolda ci juróom ci fukki fan ak ñeent yi ñu génn nii kilifa yi fi créé agence immobilière di caxat caxatee suuf si. di profito quoi. di profito. ak accords yi ñu doon signé di nëbbatu dinañ ci ñëwaat. très bien wàllum Dakar bi. yooyu yëpp. mun nañ koo gérer mun nañ koo régler mais dama ne xam nañu war a njëkk def lu ma leen jàngal seen liggéey nag ñoom ñoo yore nguur gi mhm. mais dama jàpp ni que tous ceux qui ont été à des responsabilités mhm. am nañu fichier bi nañu saisir les autorités daal di def opposition de sortie du territoire mhm. kenn du génn ci réew mi parce que nag amul benn urgence Eh, gis naa temps yii maa ngi benn waaye mu ngi yore nga nom dossier médical <laughs> boobu gars yaa ngi ca hôtel ba fële. <laughs> muy muy non non muy dem ci hôtel bi di leen di di yóbbu dossier médical bi ne dafa am ay rendez-vous yu mu dem dafa. ah rendez loolu information la kooku moom dugal na boppam ba pare. non kooku xam naa ko dama ko tudd quoi sama waay la quoi <laughs> directeur la daal directeur général la. Ah. mais sama waay la quoi. yóbbu indi naan moo day ñëw voilà son dossier médical parce que dafa war a dem. ay rendre ay check donc yooyu dañu war a opposer wu à toute sorte étendue des dégâts li fi xew Omar tant que dafuñu état des lieux waruñu bàyyi diw wala diw génn ci dëkk bi il faut qu'on fasse l'état des lieux def un audit exhaustif de ce qui s'est passé dans ce pays parce que au-delà des rey yi ñu rey fii manifestant yoo manifestant yi ñu rey fii mm. yi ñu pattal fii ñu damm seen tànk yi mm. laagal leen ñi ñu génn ci dëkk bi ñi nekk ci kaso bi mais y a y pi y a chose de plus grave qui a été fait oui. pendant douze ans des gens se sont évertués à piller piller le pays di jaay ay contrat ci suuf di mm. exploiter or fan yi passé avion bi doon jógee Sabodala di ko def deux fois par semaine ci suñu or bi ci or bi deux fois par semaine la doon jógee Sabodala di ñëw fii. Mhm. mais ci fan yi fan yi fan yi fan yi fan yi ñu fal ñi ñi bala fal ba euh, euh, le président Bassirou Diomaye. Mhm. chaque jour avion bi dana fa dem dana def quatre rotation par jour. donc ñoom ñu ngi raawale li nga xam ne mooy suñu or avant li nga xam ne mooy gouvernement bi. di jublu ci liggéey bi mu ngi avion bi deux fois par semaine lundi ak jeudi la doon dem Sabadola ñëw. mais ci benn jour quatre rotation avion bi dana ko def ba barki démb bi muy prêter serment donc loolu yooyu tamit il faut ñu toogaat saytu ko xoolaat c'est une occasion rêvée pour les Sénégalais c'est une occasion pour le président Bassirou Diomaye de permettre à tous les Sénégalais de vivre dignement de vivre de la richesse bi nga xam ne moom la leen yàlla suñu borom may. en tout cas sonn nañ ah. te Sénégalais gu cher gi tamit ñu ngi ko siy xaar wax na si. dund gu cher gi. moom laa ne mooy li nga xam ne moo gën a yomb à régler. dund gu cher gi ba ñu teggee taxi yi rek. wàññi taxi douanière rek TVA TVA yi comme Mali ni ñu ko defee. Mm-hmm. ba seen kilo suukar di jar trois cent francs suñ ko defee rek. Mm-hmm. ñun ñii ñu ñu mën nañ ko def. c'est très simple. Mm-hmm. c'est très simple. c'est-à-dire que nañu wàññi taxi nañu wàññi le train de vie de l'État. surtout loolu. waaw nañu wàññi le train de vie de l'État. nos ministres nous et DG nous coûtent cher trop cher. Trop cher. et quasiment inutile. waaw soo bëggee am quarante ministres wala cinquante ministres wala quatre-vingts ministres. bëgg leen jox ay mille litres essence wala deux mille litres essence jox leen ay crédit téléphone ak illimité. ak yeneen ak yeneen ak ci suuf. ça tu crées une république de paresseux. Mm-hmm. waaw loolu nag je crois que il faut que tamit ñu jóg ci. Mm-hmm. fexe ba nga xam ne. taxes yi dana wàññeeku bu baax a baax a baax parce que un pays où recettes yi fiñ ñu ko yaakaaree mooy douane rek. Mm-hmm. mooy dëkk boobu moom musiba naaru laay la mooy que sa pays ne produit pas. mooy nañu wàññi les les taxes. wàññi le de vie de l'État parce que tamit notre État cher. trop cher il est lourdement entretenu et il ne pratiquement grand chose. Hmm. waaw soo ko xoolee seen lépp ci ay séminaire la ay voyage ki ay nangam sangam lépp laa la wax seen nangam. Hmm. bu ñu buggee xaalis rek xam nga nu ñuy def créer benn mission à l'étranger sooy génn Sénégal gars yi wàññil la sa sa sa jox la. non seulement dañuy wàññil sa per jox la mais boo demee ci hôtel bu cher ngay tëdd facturé ko waat encore état du Sénégal. mu la koy fayal. donc loolu si euh, yooyu nañu war a jóg ces pratiques na nañu war a fexe ba nga xam dañ koy éradiquer buñ ko éradiquer Omar saaku ceeb bii di jar vingt deux mille dana mën a wàcc ba douze mille wala ba treize mille. parce que les tax portuaires les taxes douanières sont extrêmement élevées dans ce pays dañu waxante dëgg dafa élevé. et tout ça c'est pour entretenir quoi entretenir euh, voilà euh, un état bi nga xam ne euh, gëmul dara lu dul fast ak fort mmh. avant ñuy dugg ci suñu beneen euh, sujet bi sax ma laaj la rek ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum assemblée nationale gis nañ ne quatorzième législature bi mi ngi fii mais li nga xam ne mooy opposition suñ leen mënee wooyee noonu ñoom ñoo fa ëpp actuellement est-ce que jàpp nga ne pour mu mën a doxal sa politique moom Bassirou Diomaye Faye suñ demee ba mois de juillet dafa war a dissoudre li nga xam ne mooy assemblée nationale wala daf koy bàyyi mu continuer parce que actuellement li nga xam ne mooy budget bi ñuy doxal voté nañ ko en 2000 li nga xam ne mooy 2023 te en général Sénégal moom budget bi bala ñoo dem ci un tiers rek day fekk bala ñoo dem ci janvier février mars day fekk un tiers bi gars yi utiliser nañ ko euh, est que pour mu doxal soxluwul tas li nga xam ne mooy assemblée nationale tegaat fii wala boog beneen assemblée bu nga xam ne moom moo fay am majorité. Omar man man bu may dégg gars yi di di dal xel naan mois la peut-être un bi dañu lekk damay reetaan quoi. Hmm. mais Omar moom matul gars yi exécuté nañu trois quarts yi budget bi de. surtout ak campagne bi mu tombé. mais moom laa lay wax. gars yi boo moytul exécuté nañu damay bañ na budget bi yëpp sax. Hmm. mais moom moytul trois quarts budget bi nee nañ ko fuuf. ci ñetti weer tamit mën na nekk un handicap ci gouvernement bi. parce que nag euh, kii di Macky Sall n'a pas l'élégance d'un Abdou Diouf bi nga xam ne bañ ci tolloo cay jamono dafa arrêté toutes les dépenses tous les engagements ne bu kenn jël engagement bokkuñu. moom da doon signé ay di ay la wax bokkuñu c'est-à-dire euh, Abdou Diouf c'est quelqu'un d'élégant c'est un commis de l'État dafa xam État dafa xam lan la comment ça marche. Hmm. voilà. c' est pas comme Macky Sall Macky Sall Serigne Bara nee na rek la xam waaw man moom sànnante xeer rek la xam nga quoi donc mu ngoog voilà léegi assemblée bi effectivement. Euh, c' est c' est c' est la c' est c' est majoritaire. mais tey jii peut-être avec un petit jeu d' alliance. mun nañu jéem Euh, gérer ba fii ak septembre. mais loolu mooy andi transhumance ah yooyu suñ ci commencé. non je dis un petit jeu d'alliance c'est-à-dire quand je dis un petit d'alliance. Mm-hmm. xam nga en fet Benno n'est pas majoritaire. Mm-hmm. ñoom ñaar ñoo yem. sauf que y a des députés non inscrits. et mm-hmm. y a des députés qui ont décidé ne ñoom dañuy nekk ay non inscrits députés non inscrits yooyu bu ñu ñëwee qui de l'opposition qui ont battu campagne dans l'opposition bu ñu mais euh, voilà l'opposition peut être majoritaire mun nañu doxal sa dépend nag ci li ñuy gëm laa la wax. waaw ah, est-ce que dinañ ko gëm gars yi en général seen poste moo leen di andi. voilà seen intérêt. moom laa ça dépend ci li ñuy gëm. Hmm. bu dee c'est pour le bien des Sénégalais et du Sénégal. mun hmm. nañu déggoo sur l'essentiel. Hmm. dox fonctionner sinon. d'abord et c'est impératif Omar mooy que euh, d'abord kii di le premier ministre Ousmane Sonko. dana dem defi sa déclaration de politique générale. te pour que mu mën a mener. Euh, sa mission a bon port. mais il faut que ñu def loi de finances rectificative. parce que comme budget bi gars yi ñoo ko voté woon commencé ko consommer. ñoom bu ñu lañ fiy fekk pour mun a xool lañ koy jongantee xool lañ ciy yokk wala lañ ciy dindee consort faire de de de nouveaux arbitrages parce que apparemment y aura moins de ministères. il y aura moins d'agence il y aura moins de direction générale donc bu boobaa il faut ñu dem vers une loi rectificative de finances te loolu encore il faudra que mu am justement euh, c'est pour parler entre députés hmm. ba nga xam ne daañu mën a faire voter cette loi là. man jàpp naa ne actuellement moom opposition baax na ci li nga xam ne mooy démocratie parce que ñoom ñooy xoolal li nga xam ne mooy état bi di contrôler des fois yenn ci yu muy def mais actuellement moom ñoom pour l'intérêt général bu Sénégal mhm. je pense que dañoo war a jàppale ki nga xam ne mooy Diomaye fay mu jëmale li nga xam ne mooy Sénégal kanam liggéey liggéey bu am solo mhm. mais di jëm ci li nga xam ne mooy wàllum Dakar naab mu mel ni contrat bi ñu fa signé woon moom actuellement kenn gisatu ko waaye tamit lu jëm ci seen wàllum foncier bi am na ñuy njortu ne fi mu toll nii voilà am na lu ñu ci commencé jaay ah Omar affaire Dakar naaf bi très bien nguuru Sénégal mhm. scandale yooyu ñuy wax mais yàlla rek mooy Karim. tooñ nañ jomaay de ci nguuram lañ ko defee de. xamuñ ne voilà mais moom laa lay wax ma ne yàlla rek kay buur. Hmm. le premier scandale bi nga xam ne ci nguuru jomaay nañ ko président jomaay fee nañ ko defee. Hmm. mooy dakaar Nave. Hmm. Euh, contrat de concession ba nga xam ne eggagul à terme. Euh, ñu toog waxtaanee ko woo te kat xam nga li ci gën a yéeme. boo gisee boolewuñu woon Dakar Nave. c'est parce que nee nañu dañu ne woon Dakar naaf dañu dàq Falla Fleur. Hmm. Falla Fleur mooy militantu Pastef boobu ñu arrêté woon. arrêté woon waaw ndekk ne affaire maintien maintien. maintien voilà maintien rek. donc ndekk ne imaginez rek yow dëkk bi ay kilifa di woo kilifa Dakar naaf naan leen boo dàqul kii seen concession bi duñ duñ buñ koy renouveler doo leen ci bokk. Hmm. mais loolu mooy benn. ñu jël catimini tëju ci juróom-ñetti fan. kii nga xam ne mooy Youssou Sakho ancien ministre de l' nga xam ne 2001 bato Joola bato la Joola bi muy suux moom moo nekkoon ministre. nga xam ne moom dafa waroon sax làqatu waratul woon wax dara. kooku moom nañu jël comme moom la sir na jël comme consultant. Hmm. kooku moo mëne en huit jours. huit jours moo mëne consultation yooyu ba ñu def. seen appel d'offre restreint boobu waxtaanee ko mais bi ñu defee loolu war a signé affaire bi Omar ba léegi kenn xamul fu ñu signé affaire bi contrat bi kenn gisu ko. kenn gisu ko. kenn xamul fu ñu ko signé. kon loolu est-ce que mën na exister dès l'instant. non exister na signé nañ ko. mais kenn xamul fu ñu ko signé ñoom daal dañ dem làqatu bi rek dem signé ko mais mais li gën a garaaw mooy hmm. patron wu na muy Saliou Samb. mooy kii amoon problème ak Ferdinand Coly Ferdinand Coly accusé ko d'escroquerie de près de milliard hmm. temps yi Ferdinand Coly topp ko ci yoon mu ne moom dugal na référé en difficulté amul lu muy fayee hmm. Saliou Samb ba mooy directeur sirne moom moo nekk ci kilifteefu Dakar Naaf bind benn lettre le 27 mars 27 hmm. mars bii ñu ba ñu defee seen ñomme googu ba pare ci ëllëg si mu bind lettre DG Dakar Naaf ne ko voilà dama bëgg le 24 juin appartement yi nga xam ne immeuble yi nga xam ne da ngeen ko da ngeen ko occupé pour seen personnel ngeen génn ci déglu rek waxul dama bëgg le 24 mars matériel de pointe bi nga xam ne plus de 72 milliards de francs la bu nekk biir Dakar Naaf waxu leen ne dama bëgg la dama bëgg le 24 juin. Mhm. ma ñëw ngeen defal ma état lieu de matériel et consort ma xam matériel bii nga xam ne. Mhm. investir nañ ko ndax manqué na wala manqué wul déedéet mu ne immeuble yooyu dama bëgg vingt 24. ngeen quatre juin ngeen génn ci seen ñooñu ngeen fa dugal ñu génn. de waxatuma la contrat mais dañ leen a génnee. léegi mais li ci gën a garaaw ci benn immeuble ba nga xam ne mu ngi biir dakaar côté immeuble Kébé. Mhm. moom saaliw moom nga xam ne ay employé dakaar Dakar naaf cadre yi ñoo fa dëkk am na ñu ruuma naan ne que moom dafa bëgg a toj immeuble bi tabaxaat ko yow ka nga xam ne yow leeru la ni que yow dinañ la reconduire. <laughs> te duñ ko reconduire de Saliou mi moom kenn du ko reconduire xam ku ñu reconduire mais kenn du ko reconduire. est-ce que duñ fa teg fa la fleur ah. yàlla ñu fa teg yàlla ñu fa teg fa la fleur donc. mu ne alors moo tax nag employé dakaar Nav yi daal di ne nag ñoom ils ont des soupçons forts que foncier wu dakaar Nav bi dañ ko jaay boo gisee gars yi bëgg pamte pamte affaire bi vite fait nii di jël ay courrier di ko di ko di ko nëbb di jël ay affaire di ko nëbb mooy que suuf soosu dañ ko bëgg a jaay te mais suuf soosu biir plateau biir centre ville de Dakar mais kooku boo ko jaayee c'est c'est des milliards absolument donc loolu moo tax ma ne premier scandale bi nga xam ne nguuru président Bassirou Diomaye moom lañu nar a gérer. mooy le scandale Dakar Naaf. parce que imagine nga suuf soosu Sénégal la de toute façon nit mun na dem sax palais palais ba fale président fii président Bassirou Diomaye nekk ut kayit ne moo ko moom. gars yi dañoo am fit nag de. waaw la ñuy demee. moom laa la wax moo tax ut kayit lijjanti ko. wala ñu jaay la par entente directe suuf jaay la immeuble ba nga naan na koy toj dafa lépp mooy mais employé Dakar naa fi ñoom nee nañu amaguñ ci firnde mais lenn moom leer na leen mooy que immeuble boobu moom jaay nañ ko mais loolu imaginer ci dëkk Sénégal Omar genre pratique yi di prospérer après ñu ne noonu dañuy woo nit ñi si njëkk pour arranger quelqu'un qui est capable de mettre 1700 de famille à la rue. Absolument. 1700 de famille au chômage. yow xalaatoo loolu yëpp mais nit kooku boo ko jekkoo sa mais da ko daan tuggee ci kaso bi pour 1700 ans. loolu de moom dina métti si ñoom trop. waaw. mais nag li nga wax dafa am solo ah loolu jàpp naa ne ñu ci bëri ci li nga xam ne mooy suñ autorité duñ ko bàyyi xel mais dañuy fekk benn structure bu taxaw taxaw ay doomu sénégalais di fa liggéey yow 1700 yooyu jàppal ne yor nañ 1700 famille fu nekk yaa ngi yóbbu dara sa kër suñ ñëwee bëgg leen a dàq noonu day nekk lu nga xam ne day méttiwaat ci askanu Sénégal mais tout à fait on envoie encore des gens au mm-hmm. pour lan parce que quelque euh, juge que moom dafa war a nekk millionnaire quoi mm-hmm. wala dafa nekk war a nekk ça comme ça comme ça mais dama ne moo tax ma ne Dieu fait bien les choses Oumar. yàlla yàlla rek xam lu muy mais imaginez tey lii situation bi su dal woon ci nguuru président. Diomaye Bassirou Diomaye Faye. pour mu leer du yomb de. bu doon ci nguuru Macky Sall mii. mais on va envoyer ces gens au chômage vite fait et puis on n'en parle pas. ñaata entreprise ñoo fi tëj. et du fait justement des des des des de leurs directeurs généraux fu mu mujjee fenn. nit ñaa ngi ka sotraak ngi nii siyaas ngi nii depuis boobu ak léegi seen 3 milliards ñu ngi koy laaj grève nañu la grève nañu la fin ba amatuñu suux kenn faalewu leen donc lii buñ ko jekkoo noonu nañ koy def ils vont manger l'argent le contrat de Dakarnave ni ko fuuf lekk ko ba pare du mujj fenn ce sont les sénégale qu'on va envoyer chômage famille sénégalaise yi continue di di di di di di di di di di di di di di di peine donc moo tax ma ne la lii ba président Bassirou Diomaye doon wax démb dans son discours sur la lutte contre la corruption ma ne non dafa mel ni kon dossier bi daf ko jot waaw parce que bii il faut ñu régler ko Omar voilà des pères de famille mënuñu nekk ci béréb mais xanaa sax bu bu bu ñuy sax nangu concession bi mais que qu'on mette les formes faire en sorte que ñii fay liggéeyee qu'on protège leur emploi protège leen ah qu'on protège leur emploi mais nii nii nii rek parce que yow tu as besoin d'argent nguur gi dafa war a geex il faut nga am ay milliards yooyu demee États-Unis wala yooyu non mais ça il faut que mu geex ci dëkk bi les deniers publique on doit plus badiner avec on doit plus s'amuser avec les deniers publique donc voici un moment bi nga xam ne un exemple bi nga xam ne le président de la République war na ko jël donné ko à tous les Sénégalais ba ci man mii ku fi toogati def loo warul def. ci alalu askan gi. ñu teg la daan nga nga xam ne soo dàqloo soo yàqee liggéeyu deux cent personnes ñu tëj la deux cent ans ci kaso bi. Hmm. waaw daan moom mënul ñàkk parce que nekkee ci réew bu nga xam ne voilà dafa am yoon. képp ku nga xam ne da nga jalgati yoon dévier dañ la war a topp ci yoon. dañ la a topp muy ñi nga xam ne ñooy gérer muy askan bi parce que askan bi tamit voilà foofu il faut ñu xaar leen fa parce am na yu nga xam ne pratique tant que laaluñ seen poos li nga xam ne mooy sénégalais yi moom duñ ko bàyyi. duñ ko bàyyi soo demee ci li nga xam ne mooy France États-Unis man jàpp naa ne tubaab yi ñoo ñu gën a yari di ko fuuf. mais c'est ñoo ñu gën a dëng. waaw ñoo ñu gën a luubal. mais infraction yi nga xam ne ñu ngi koy def état bi day dóor seen poos wala boog mu tëj leen ba dootuñ ko defaat mais fii nii da ngay gis des fois ci kaw tali bi nit ki lu ko neex lay def. bu mujj fenn. parce que suñ ñëwee amaana dafa am koy taxaw ak jox ko benn mille francs wala téeméer mu bàyyi la nga dem mais suñ demee ba ak lii li nga xam ne président Diomaye gis naa gars yi jëluñu téeméer de hmm. ak 1000 francs fan yi seetlu naa bu baax te affaire dañ ko war a digitaliser ñu ngi ci non fan yi gis naa ne fan yi moom maa ngi romb ah. di xool quoi mais gars yi dañuy ñu filmer leen waaw gars yi duñ jël bëri <laughs> trop alerte rek waaw ah, alerte yi moom missile yi moom fi mu toll nii mi ngi daw bu baax a baax gars yi ñu ngi lancé de ah, ñu ngi lancé bu baax a baax yàlla na fi Sénégal jógee soppeeku en tout cas jot naa jot na li nga xam ne mooy réewu Sénégal dem ci li nga xam ne mooy wàllum développement. parce que nekk na dëkk bu nga xam ne am nañ lépp ah am nañ or am nañ li nga xam ne mooy fer phosphate. Mm. mu nekk yu nga xam ne yu bëri la. xam naa rek li ñu cëraloon ci li nga xam ne mooy waxtu bi jeex na mais sa campagne anacarde bi fu mu toll. waaw campagne anacarde bi mu ngi war a commencer biento Euh, je crois que daañu ci gën a wax la semaine prochaine mais mu ngi war a commencer bientôt. Mm rek benn affaire daaw Euh, campagne bi président biñ ko kiiyee président de la république dafa jël décret daal di autoriser campagne en égard transport bi ñu def ko par la voie routière hmm. on a réussi à faire passer cent quarante tonnes. cent quarante mille tonnes ah. waaw cent quarante donc euh, loolu tamit c'est une excellente chose bi nga xam ne. Euh, war nañu reconduire la même opération. Euh, le gouverneur de Ziguinchor doit s'inspirer de la même opération parce que bu dee chambre de commerce Ziguinchor dañu bëgg di ñoom. bëgguñu takkal seen bopp bëgguñu investir dara bëgguñu def dara. ñoom bateau Kosama bi nga xam ne mënul yóbbu lu dul cent soixante conteneurs. ñoom boobu nañu bëgg te kooku bu ñëwee la ñu waroon transporter ci durée wu un mois. boo moytu daañ fa nekk pendant six mois. duñ ko def teg ko foofu ci poor bi ba produit bi commencé yàqu. donc moo tax président de la république bi surtout euh, balaa moom le gouverneur de Ziguinchor bi nga xam ne il a été adjoint gouverneur de Ziguinchor Alioune euh, kii Mortalla Tine mm-hmm. mooy nañu fexe ba cette campagne arachidière là mu mel ni bu daaw bi mm-hmm. qu'on permette justement euh, au à la de la filière ñu gaaw a évacuer les produits mu génn voilà mm-hmm. au moins ñu mën a dem dans les deux cent à deux cent cinquante mille tonnes bu ñu ko fa bàyyee Bissau Guinée Bissau Guinée Bissau lay mujjee dugg wala Gambie lay mujjee dugg waaw donc nañu fexe mu gaaw a génn foofu egg si Dakar egg si au port de Dakar mm. waaw et pour sa justement je dis jarul ñuy déglu foofu chambre de commerce boobu parce que ñoom li ñu bëgg mooy euh, toog muy dox rek quoi dafuñu dara ñu def dara bëgguñu investir dara mais bëgg nañu à travers le bato là fayee ko ci ay taxes am ci lii am ci lële am ci lële donc euh, j'en appelle encore à la responsabilité du gouverneur de Ziguinchor Mor Talla pour permettre justement aux acteurs de la frière anacarde nañ ko defee woon daaw à travers le décret du président de la République ñu defee ko noonu. absolument parce que pouvoir terrestre bi moom li mu ci jàllale woon bëri na trop. cent quarante mille te loolu lépp dafa nekk lu nga xam ne dafay jariñ li nga xam ne mooy askanu Casamance. waaye tamit dina gën a ñooñal li nga xam ne mooy wàllum économie. wu Sénégal voilà di la jaajëfal bu baax a baax Pape. xam naa ne tey moom voilà baron daf ñu bàyyi ñu xaabaabal am nañ plus de une heure de temps. malgré que <laughs> yaa fi si suba ba léegi. non c' que man futur ministre laa de moo tax kenn du ma yab de. Ah. yi yabante yooyu pour affaire yooyu. non su ma neexee damay xaabaabal une heure de temps. <laughs> man mi damay nam dañu may nommé ministre ah. non futur ministre laa. ah man de gaañ mooy loolu jox ma téléphone. ma lay sinap non non non yow. ginnaaw di sinap ah. non non yow doo sinap ah. da ngay ñëw. da ngay ñëw ànd di dox. Ah. waaw non futur ministre laa de moo tax gisoo yii. non mën na nekk mën bu ñu neexee xaabaabal une heure de temps Cheikh Niass du wax kenn du wax. kenn du wax ah waaw waaw. non Cheikh moom gëw ma ni dina wax quoi. mais baron moom dina kaas. lu muy kaas. ah baron la de planton laa def. des fois day nekk sa gaañan. planton jamono yi yaa ngi koy tagg dugg ci ay France ak Italie mu kontaan. mais tey moom xam naa. ko non planton fële du nekk planton fële sama ministère bi de. Hmm. non non non damay naan Cheikh Niass boo lay jàppale da nga koy teg bi fële quoi. voilà. <laughs> non kii mooy baron nag. non comme ça boo ñëwee fii mu naan mais grand Omar waaye doo wax ci grand bi quoi pourtant ñoo fi nekkoon démb quoi jàpp ci yaa ngi dégg sa copain de. jàpp ci quoi Omar. ah. mu <laughs> mu ne. en tout cas tontu na la en tout cas tontu na la mais. baron man dégguma tontu bi de. waaw voilà ñun moom. non jéem naa ko nommé directeur de cabinet Feuz mooy nag sama assistante. gars yi nag internautes yi dañuy kaas rek nee nañ Moustapha mooy seen gars parce que moom day nuyu internautes yi day jël temps mais ñun moom. waaw nuyool nuyool waaw nañ nuyu kaay. nañ nuyu baro baro may ñu deux minutes dégg nga. parce que des fois interaction. waaw doon dañuy dëgg des questions tout ça. waaw Talla Niang. waaw wax fa dëgg yàlla Talla Niang ñu ngi lay jaajëfal. Mhm. waaw Umar euh, Bamba jërëjëf yow it jërëjëf waaw ah, jërëjëf waay. waaye bàyyi saaga bi waaye saaga bi Facebook du saaga baaxul du saaga fe ay réseaux sociaux YouTube du pour saaga. sànq li ñuy wax nii rek ah? ki nga xam ne mooy xaar mbay nee na en France alamaan bi nga xam ne des fois dañ leen koy def c'est estimé à quatre-vingt-dix euros xam nga loolu nekk na lu nga xam ne lu bëri la torop kuñ ah? ko dóor sa poos je pense que ne voilà beneen yoon si nga jubal waaye ki nga xam ne kii de xam naa sama mbokk la de welcome mi ngi laajte numéro Oumar Gueye ah mhm. welcome demal sama page Facebook rek wala kii nga def machine incha allah ñu gën a waxtaan Oumar Gueye moo fa nekk ah. soo demee rek incha allah mais maam Ndeye Kodou jërëjëf non bàyyi ma eh doo xamee ma ma wax Ndeye Kodou Fall Ndeye Kodou jërëjëf futur ministre merci Ndeye Kodou yàlla sa ñaan nangu Ndeye Kodou waaw xaadim mais gars yi yéen ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu Ahmadou Bamba Sall très prochainement nag Omar Mhm. balaa ñoo commencé nuyul gars yi bu ñu demee ba ci digg bi nuyul gars yi bu ñuy fin nuyul gars yi quoi parce que gars yi nag mhm. wax dëgg yàlla ils ont été largement présents aujourd'hui waaw gars yi ñu ngi leen di nuyu Ousmane Diallo jaajëf waay mhm. euh, Fatima Diakhabi jaajëf Aliou Diagne gars yi yéen ñëpp daal ah, voilà mu ngoog nuyu leen bu baax a baax ñoom ñëpp faatu Assine ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ah. ils étaient nombreux à nous suivre ci li nga xam ne mooy la page YouTube bu li nga xam ne mooy Walfnet ñi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di ah, jaajëfal le baron waaw Moustapha Niang nee na ma dafa bëggoon ma wax ci dossier ABN bi Moustapha Niang c'est promis la semaine prochaine bu soobee yàlla on va revenir sur la question wax nga dëgg ah fàttewuñu ko de xam nga nag liggéey bi mooy bëri ak dossiers yi ak ñuy jox mais semaine prochaine incha allah on viendra sur ça Moustapha Niang mhm. jërëjëf Bakary Badji merci on est de tout cœur avec vous mhm. Modi Aydara merci fa sëñ Fallou Gueye di ci profité nag di sëñ Abdou Mbacke fee ci Daaru Musi mhm. waaw yàlla sunu borom yokk yokk yokk yokk taxawaayam may ko wér Euh, mu yàgg trop sunu kanam. Mm. jërëjëf waay. merci man damaa nga nuyul ma ki nga xam ne mooy Two Five sama. Eh, ñu bisi na mu ngi mu ngi Dakar. ah Mr eh, Two Five ñu na. <laughs> maa ngi koy ziar bu baax a baax moom. ñëw na xam nga moom bu baax la mooy gars yi doon Macky Macky tere woon dugg ah, Sénégal quoi. non loolu su ma ko yëgoon damay xeex. <laughs> waaw ñoom la. Ah. sa suba sa ba mag ba ñu falee jabaay rek la ñëw. waaw mm. tout five bien tout five monsieur lii et madame lii ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax nuyu bu baax a baax waaw ak imam Matar Mbacke fële ca New York également voilà mbokku internautes yi nga xam ne yéen ñu doon topp sur la voie des sans voix di leen joxaat dig daje beneen yoon rek ci beneen live mais jàpp naa ne li nga xam ne ne korité lay tombeel voilà xam naa rek après korité incha allah dinañ fi ñëwaat waxtaan ak yéen ci lépp lu jëm. baron baron daam daam Diop am na daam Diop buy laaj sama numéro joxoo ko. daam Diop ah. waa baron xam naa dina joxe numéro bi incha allah. daam Diop jox ko ko waaw jox ko sama numéro quoi jërëjëf gars yi. Mhm. vraiment kontaan nañ ci yéen. di leen jaajëfal bu baax a baax d'ici là portez-vous bien ngeen wéy di ñu topp ci li nga xam ne mooy yi voilà émission yi mi ngi continuer ci li nga xam ne mooy koor gi keppaar gi dina am ci kanam tuuti waaye tamit salon d'honneur guddi mën ngeen ko am ci li nga xam ne mooy Walf TV mbokk internet yi jaa ngeen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais